Uh...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 ak yéen waaye yàlla dogal na ni fii rekk la ma te fii rekk luñ tabarakallahu di gërëm ñëpp ci seen teewaay waaye di sant ñëpp di nuyu di ñaanal yàlla ñëpp yàlla nañ ko fekke ay déwéni déwéni déwén te mu ànd ak wér ak yor ak mucc tabarakallahu ñu dellu sant ñëpp parce que sant du doy ñi ñu bokkal daara ji association des imams et te nekk ci commune Hann Bel-Air bi ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom imam mama ngi nii ñoom imam kat imam as imam ali Wade imam Sow ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi ci biir mbooloo bi xam ne mbir mi seen mbir la ñu jàpp ci تبارك الله يلا يلا خير اليوم نيلو كو تيغي تي تيجي ديماس ني نيو ان شاء الله نون لا نكاي ديفا تي يلاك تي كاتو يالا دا فاي تومبي ني فاي تيغالي خير الجمعه كي ني فو وارا تبخ تبخون نانكو مو ماك نيو ديندي تبخ ما وار كو تيغان مو نيك خير بيس nekkaat jumaa ju bees amaat xabul yu bees li ciy xaar génération yu bees yàlla ko yàlla noonu ñépp ngi ni te sama mbokk gi ni oustaz Modou Fall oustaz Malick Diop daara al kitaab wa sunna mi ngi nii amul fu nit jàngalul alquran ci ñi ma xam jàng nañu alquran yéena ko jotaay bokk na yi nii ñi teel a ci kër ga ci suba bi ñu ñëwee fekk nañu moom muy tëdd xatmu ci benn kaamil bu doon def yéena ko jotaay biir réew mi huwa li nafsihi yàlla yàlla fay ko yiw Oustaz Khalifa Fall ñu bokk lépp asantise yépp yi dëgg la nag Euh, daara ji ñoo ay moo tax ñoom la ñuy jëkk a tukki di sant commune bi yëpp comme ni ko Saliou waxee jiital ci ki yàlla jiital ci commune parce que suñu borom tamit noonu lay doxale yonent bi dafa wax ne bu ngeen dee tukki ngeen nekk ñaar di génn laaj leen kan mooy diriger yoon

noonu mu koy defee en tant que monsieur le maire notable nekk ci dëkk bi nekk ay politiciens comme moom noonu lañ koy defee bi honorable député bi nuyu doomu ma nga ca kër ga di wane bokkam ci mbir mi noonu la nekk ci côté Ousmane Faye noonu la nekkee ci côté Abdourahmane Camara noonu la nekkee ci yeneen politiciens yëpp yal na yàlla fay leen yiw honorable daan ñëw di làqu ci koñ yi ma ko yéen làqu ci koñ du seen cër parce que da leen di indil tuuma ndax nit ñi dañ ba ma xewlee gisuma ko ma ko da ngay ñëw nekk ci kanam yor jukkoy bakkat bu gestu gis la tabaarakallahu moo tax def na ko mais ñëwul noonu kese ñëw na wàll ma dal na yàlla fay ko yiw sunu mbokk Amadou Diarra nekk maire fële ca Pikine Pikine Nord bi sama wëllëre dëkk ak samay jigéen ak samay jàmbaar soxla yi bari na mais foog ma dagg sama yitte ñëw ñu daan liggéey ci suuf loo xam ne à distance lañ koy def yàlla dogal tey mu ñëw fekke jotaay bi yal ko yàlla fay yiw ay kàttan dañuy wax ne borom bitu bu mag boo gis magasin moo nekk ci xelam kon nag magasin yi nekk ci seen xel yàlla leen ko yàlla Babacar ñu ngi lay gërëm fii dafa am jamono ñu fi ñu fiy tànt ndox mi taaf mënuñu fi def benn tànt moom mu ñëw summee ko ànd ak ñun ak pelle mécanique bi ba yàlla def nit ñu mën ci toog loolu la fàttewuñu ko koo ñi xaw ma ni ma koy def ni mu la def moo tax dana yàlla fay ko yiw moom équipe am yëpp tabaarakallaa di gërëm nag suñu waa kër suñu kër ñun waa Taïba parce que foofu la ñu bokk ñu ngi nii sama pël baa ngi nii ak xaritu Paa Thiel ñu ngi nii tabaarakallaa ñu gërëm leen mais di gërëm nuyoo ak ziar ak takdiir ci Seyda Fatou Bintou dal na ko yàlla fay yiw maa ngi sàkku ci ñépp ñu ñaanal ko yàlla yàlla yokk wéram dal na ko yàlla yokkal wéram jege naa ko trop nee naa ko yàlla baax na ba nga nekk ba politicien bi def la ministre de finance kon di nga ndax day joxe te joxe alal li muy neex neex joxe cër moo ko te loolu lay dal na ko yàlla fay yiw dal na ko yàlla sàmm dal na ko yàlla dolli wér tabaarakallah macha allah ñi gërëm bu baax moo leen ko dugal loxoom ci bis bi dafa am ñoo xam ne man ñoom ñooy ànd màkka bi ànd faas muy waa AMS voyage directeur El Hadj Mamadou Faye mu ngi nii toog nooy ànd depuis bi yàlla xamul ba léegi nooy ànd màkk di ànd fas mais yàlla ngi dogal na incha allah bu ma juumul ci date bi le treize ci kattanu yàlla war nañu dem fas le treize mooy ginnaaw suba kon nag alhamdulilah mu ngi nii mais ñëwul dafa ñëw jàpp ci combat bi dana ko yàlla fay yiw noonu la ñuy gërëme tamit mairie de la ville jàpp nañ ci ci liggéey bi jàpp nañ ci yàlla leen yàlla fay yiw su ko defee suñu famille bopp ñu gërëm leen ndax ñoom ñëpp ñu dama am sama benn xarit bu jigéen bu ñuy wax Adja Sala Ndiaye ñu déggante ma ne ko Adja Sala tey yaay sama invité d'honneur muy nit ku baax mu teel a ñëw mu biir mbooloo ñu koy nuyu bu baax di ko wàcce wàcce waayam sama beneen jigéen bu ñuy wax Fatou Fafanaan mi ngi ci mbooloo mi ñu ngi koy ko ñaanal yàlla yàlla kattanal ko di beral nuyoo ak ñaan Adja Ngoone Diop yàlla ko yàlla moom xam na man xam na sama waa kër xam nañu yàlla ko yàlla fay nuyu te sama mbokk Hadj Babacar ndeysaan bu ñu nekkee Màkka maam moom suñu lal yi ñooy dem ñu ngi nuyu bu baax a baax di ko ziar di nuyu ñëpp ah moom daanaka lu ñuy waxati amatu fi ndax ay nit bu ñu dajee te lenn dajee leneen bés bi biñ koy woote dañu wax ni dañuy woote bis bi pour torox lu yàlla. ci benn aaya alquran mooy falawlaa is jaa'ahum ba'sunaa falawlaa is jaa'ahum ba'sunaa tabarra'uu koo wax ci àdduna ci Sénégal koo wax danaan dëkk bi dafa metti métitu dëkk bi kan la kan la maanaam ku métier أن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات suñu borom nee na ñëpp buñ mën nangu lool seen ceeb kon ku sa ceeb tooyul doo jàpp ni yaa ma mënu yàlla man nag maa ngi leen di fàttali du ma politicien man du ma politicien léegi lan moo tax suñu ceeb koy loolu ku nekk yaa koy tontu sa bopp mais jikko jikko dina yàqu ba mu teree ceeb yi tool ne bu ñu demee ci àdduna ba prix yi prix yi bic yi bic yi nekk ci loxo ignorant yi ñu xamul dara yoon bic yi di bind

Tijaan si nee na yar soldaar moo gën taal xare xamuloo ni ñu jox la tëj nga sol ko ñu jox la ngànnaay nga yor ko ñu jox la cër nga téye ñu yabal la ci sa mbokk nga maate ko ki la formé échec mooy déglu parce que ki ñu tuddee agent assermenté jaar na ci formation ñu pare ci moom jox ko tënk ne ko Sonko ñu respecté la du ñaari arme ñu yëkkati ñaar naay joxati ko ñaata arme la leen teg koo xamante ni que elle n'est pas armé il baax bi il est désarmé ci ñetti côté yëpp bi dara nekku ci yaram bi solul dara loxo yi yorul dara boo teg mu am ko échec la. moo tax nit ñi ay jaamu yàlla lañu. yonent bi nee na yàlla daf ko yónni pour yërmande bu ñu demee ba ku ñu jox kilifteef ci réew muy war ñu ko yilif ñëw yilif ku ñu jox kilifteef bu ñu ko commencé ci kaw la dangay commencé ci suuf sa sa biir néeg sa jabar sa doom sa jànq sa nangam parce que boo wooyee sa jànq bu la sa borom bi wooyee mu nga bett dañuy toog ba ki jëm kenn mu ni bari na ñu nga xam ne dañuy jël jànq ne ko kaayu jël naa la mbindaan nga liggéeyal mu ñëw ngeen d'accord ci prix par weer premier jour ak nga génne jàll fóot ne ko fóotal ko mu fóot paaseel na ci ngoon si nga tappaas ko ne ko nañu calculer mois bi li ma la war a fay ma fay la te mois bi yéen a ngi d'accord ci trente mille mu yéen laa fóotal donc war nañu ko kon mille francs laa lay jox yow ko kanam bu taari li ñu fi baari ba yow yaa njëkk a wor ci suuf yàlla boole la ko lay wor ci kaw yonent bi moo ni irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku nekk doo tane dañ koy ñeewante ki tane ñeewante la man ñu defaraat ak bi bi ci topp wa bi manabiri fajir bu ñu demee ba nekk ci devant les chaînes ay nit ñoo xamante insignifiant toog ci kanamu télé wala toog ci kaw miin balu jàkka wala toog ci yow sa micro nit ñi dina déglu te fekk ne yow yaay bandi bu gën a mag ci bandi yi parce que da ngay jaay te kenn mënu laa ñàkk jikko te loolu moo am ñi nekk ci plateau télé yi di wax naan la dañuy waxal diine wala ñuy waxal réew wala ñuy waxal nangam waxal ñu nangam nangam la ñuy waxal yàlla dafa bëgg kuy wax nga wax pour moom waykat ba dafa waxoon ni fii naa maashiru fii naa maashiru lam yabnu li qawmihim wa in bana qawmuhum ما أفسدوا عادوا فينا معاشر لم يكنوا لقومهم وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا xoolaat ma baax ko xamuloo ni gàcce gàcce jeunesse bi delluwaat seen xel da ngay faral di dégg léegi ku naan la sëriñ si waxuñu ak nguur gi ma bëgg a attirer seen attention parce que nit mu jàngee loo jàngul te li mu jàng lay appliqué da di ñàkk dégg ko. John Bepos. ñett dañoo perte ki dund weeru koor ba weeru koor jeex mu dese bàkkaar dund weeru ba mu jeex nga dese bàkkaar amoo àjjana xale yi nañu wuti àjjana nañu wuti àjjana ci waajur yi dabu seen bànneex kon neexal ku dul sa waajur yàq na sa muritam yàq ko gis nga sëriñ lu baax la sëriñ lu baax la mais tàmbali sa muritam tàmbalee ci sa muritam moom sallallahu alayhi wa man arada an yansaxa sultaan li ñuy sultaani fii amrihi fala yubdihi alaniyatan ku bëgg waxante ku yàlla jox cër boo ko naree laay bii wala nga bëgg ko jox conseil bul ko jox publiquement waaw bu fekkee nit ki jàng na xadis bi te yow jàngu xadis bi sa bëgg mooy mu takk euh, rajo naan alaaji Souleymane Baye yéen alxar yi alaaji Souleymane Baye bàyyi Quraan bi alaaji Souleymane Baye waaw sa wax la war a wala waxu si waxu yonent bi warul dégg sa wax mais na def li ko yonent bi sant lan la ko yonent bi sant ko yonent sant yonent bi li mu ko sant mooy mu dem ca ka yore ba kilifa ba jël ko hors antenne wax ak moom su déggee li ko wax fa li lay xam su ko defal moom jaaroo wàcc na mais nag su yàlla bi mbugal du ca bokk lọ́rùn yitte moo tax sama doom amul këyit moo tax aw ma nangam moo tax sama boole yi bari nga jàpp ni yow sa digganteeg sa borom moo ñagas moo tax li nga bëggoon yëpp am loo nga dabatal ko te mooy tuub ko te mooy jéggalu ko loolu moo ñu indi ñu organiser bis bi daje fi mu nekk bëccëgu ñaar. bëccëgu toroxlu yàlla ñu ngi jëm ci fukki weer yoo xam ne dara leeru ko ci luy xew dara leeru ko ci parce que diggante muus yi la ak gaynde yi xiiroonte te ñu ñu nekk ci diggante moo tax muy ñaan yàlla toroxlul ko pour réew mi am dal am jàmm réew mi am dal am jàmm ñu wax ni ba tegu solidarité la te kuy ñaan di nga sàkk sarax kuy ñaan da sàkk sarax am na jaamu yàlla yoo xam ne jox nañ ñu lu ñu war a jox jaamu yàlla yi démb Saliou ak Moustapha Mbow ak ñeneen ñi ñu bokkal di ko coordonné yal na leen ñoom ñëpp xool nañu ko ba lu waa mat ñeenti téeméeri nit. yàlla yàlla fay ñëpp yi su ko defee ñu orienté wu dugg ci biir jàkk ji dugg waaw kay man yi bàyyi ma dafa am ñaari xabaar yu joxe. bu njëkk bi mooy le dañuy daje ci armée yi ñaanal néew ya fa nekk ak yi nekk feneen le 16 ci suba gi lay doon beneen bi ci des sama gàmmu man sama gàmmu bi may def ca Diourbel Diourbel laa koy defee kër Alaaji Ahmad Sall ca Diourbel sama benn yaay bu ñuy wax Adja Awa Sall di frère di sœur ci Hadj Mouhamad Bachir bii sunu gàmmu jàpp nañ ko incha allah le 28 mai ca Diourbel ku ma ko rek dinaa la mere